ñun daal ñoo ngi daal ñoo ngi daal

waaye da cee bari ñu tukki woon te fii nu toll sax am na ñoo xam ne ñëwaguñu waaye jàm jàmbaar yi daal nga jàpp ni sa bëgg rek lañuy ñuy lépp loo xam ne sa dara la dañuy ñaan yàlla yàlla njëriñal réew mi la te ñun ci réew mi lañu nekk jàmm rek lañu bëgg di dox jàmm ñi ñun liggéey rek mooy sunu wàll amuñu leen lu ñuy def doonu dégg ci lenn doo dégg kenn ni taalibe sëñ Touba la ci ñii waaye koo euh, euh, yéene woon nañu lopp lool nag li ñu wax ñaari téeméer ak juróom fukk la ci wolof ci million di deux cent cinquante millions ah dañ maa def jëwrin ci kanam waaye jàppal ni ñoo ma gën a ëpp Pastef ñoo ma gën a jub ñoo ma gën a ñoo man ci liggéey bi danaa ci cité ñenn rek ku mel ni sëñ Abdoulaye Jam yi ak Serigne Seck mii ak sëriñ Pape Fall mi euh, ak Mbacke Samb mii ay nit la ñuy yoo xam ni euh, bu ma nee bu ma téléphoné nangam rek dañuy mel ne ñoom dañuy daw ci sëñ bi la jëm ak Serigne Ousmane Ndiaye sambus mi maa ngi ko doon fa Ousmane Ndiaye ku baax la lépp loo xam ne woote naa ci euh, dañuy mel ne ku may puus lii lii sëñ laay mi xalaatam la man xalaatoon naa ko waaye dafa tukki France la ma wooyee alxamis ay 4 heures 16 fekk maa ngi añ ba pare ni ma mbay war ngaa yëngatu ndax ci mbëndum Tuubaa mi nga woote ci nu jëf ca dem ca kanamu sëñ bi teg ko ci loxoom mu ñaanal nu nu dellu ca waar wa ba mu fa jógee 4 ma dem sama bureau laa toog mooy passif gii nga xam ne moom laa lay wax am nañu ko 16 heures avant 18 heures li dajale jege na téeméeri million ci téléphone rek ci yoon wi sax am na xam ne fi ne ñu ngi woote di joxe ñu ni ma nag nan dem yóbbu ko ajjuma naka tey bu nu jullee takkusaan ba pare Mbàkke daal sax njaboot a ngi nii say taalibe ngi nii dégluwuñu lu dul yow lañuy ñuy déglu lépp loo xam ne foog nañ ni bëgg nga ko saa yoo joxane joxañee taxaw nañ ci ay nit lañuy ñoo xam daal loo leen ñaanal rek man mi di xeeb naa ko ndax dañ maa jiital ba pare ëpp ma passif. jërëjëf waaw mm, man de kàddu yi sëñ Mbaye tuuti rek laa ci sof Mbàkke ñii da nga leen a jàngalaat aw yoon waqdi xawaaija allazina daamu sëñ Tuubaa dafa wax ni yàlla maa ngi lay ñaan nga nga faj aajo képp koo xam ne dafa sax ci dima liggéeyal te nga may ko la ñuy sàkk dërs boobu nga jàngalaat leen ko ndax bi lii amee bi bi bi ci kenn yaa njëkk yëkkati sa alal def ko ci bàyaatum bi wadaalikal fawzul nga jàngal leen loolu loolu nag sarak yii nga àndal ñoom ñii nag waruf xatun wa hiya ixwaanun lahum himamun maan wafaay bi sidqi fil uxuwaati ñuy am mbooloo mu ànd moo xam ne dara ñoru leen lu dul liggéeyal Serigne tubaa nga boole leen ak sa rakk ji muy Serigne Ahmadou ci liggéeyu université bi ñu taxaw ci taxawaay bu rafet ndax lii banal xuduutu madrasatan lii banal ah, bi nga ñëwee sa yitte doon loolu ñoom ñu engagé wu am ci pas-pas am ci walante nga boole leen ak Serigne Ahmadou mi yàlla dogali ñu liggéey liggéey boobu ba gis ni lii am na ci dëkk bi yonent bi sallallahu alayhi wax ni man faraja kurbata muslimin faraja laahu kurbahu yowmal xiyaama képp ku faj aajo jullit ci àdduna bu yowmal xiyaama suñu borom faj sa nga jàngal leen loolu ñu xam ni lii mooy liggéeyal Serigne Touba lii mooy li nga xamante ni moo am solo ndax dafa bari ñoo dañoo bàyyi seen i dëkk seen dëkk bàyyi gent seen dëkk maam gent ñu ñëw ci sëriñ bi ñu nekk ci ndox mi te bañ fi ñëw yaakaar ak jàpp ni fii moo gën a yomb ci ñoom ab dund moo gën a yomb ci ñoom moo ëpp ci ñoom naaf noflaay ñu gental seeni dëkk ñëw bi ndox mi dalee ci seen kaw nag wan nga leen ni Serigne Touba mooy xettilikaayu adduna mooy xettilikaayu àllaaxira ndax jëf ji yaa ci gën a yaa ci jiitu ñëpp bi nga ñëwee sarak ju baax ji muy Cheikh Mamadou Bassir di jàmbaar lool bari na ñoo xam mi ngi leen di woo di leen soñu ñuy indi di la jox addiya te doo xam ne moom mii moo leen woo loolu lépp muy ab liggéeyam boo xam ni jaadu na buñ toogee ci yow ñu seedal la ko Mbakke dañ lay ñaanal yàlla guddal saw fan man aradallahu bi xayrin fata alayhi baabal amal wa axlaqa alayhi baabal jadal yàlla kum nam mu ci yow aw liggéey la lay ubbil buntu jëf te buntu jëf bii bi nga ciy dugg murit yëpp nga ci dugalaale sa jëf jooju sa 200 millions bu benn murit woon andiwul woon dara bu ëllëgee bu leen sëriñ Tuubaa wax ni comme sëriñ bi moo xam ne inna allaahu wal muqi wa anna alxaasim yàlla moo joxe man maay séddale bu ëllëgee bu leen sëriñ Tuubaa di sédd ci sa 200 millions yooyu ñëm ñëpp daañ ci xaj defaru ci àdduna defaru ci àlaxira bu kenn ñëwul woon ñii nag ñuy sàkku nga ñaanal leen muy mbooloo moo xam dara ñoru leen lu dul jóg liggéeyal sëriñ tubaa anniversaire bi nga ko wootee dañoo ñëw taxaw lii bi ñu koy def xaaruñu ci ndigalul kenn ku dul waxtaane ko xam ni dañoo war a liggéeyal Serigne Touba te liggéeyal Serigne Touba waruñu ci xaar kenn ñu génne seen ala jox ci loolu nag Mbàkke loolu lépp sa doxin moo rafet sa jëf moo rafet ni ngay doxee moo rafet arab yi nag dañuy wax ni kulli say in yamur walakin laysa kulli say in yunsa am na bis yoo xam day romb jàll waaye dana ci am jëf yoo xam ne kenn du ko fàtte jëf jii nga xam ni mbooloo mi indi nañ ko tey jëf ko fii ba àddunay tukki danañ fàttaliku ne dat sàngamkat ba mbënn mi amee ci biir Touba ba sëñ Muntaxa defee nangam am na mbooloo moo xam jóg nañ fekk sëñ mu Muntaxa ci jëf jooju sa taxawaay nag day joxe misaalu Omar ibnul Abdul Aziz mi nga xam ne xalifatul muslimina la woon nga xam ne manduteem demoon na ba nga xam ni yàlla ci biir manduteem ak xilaafaam demoon na ba nga xam ni till du fekk béy ci biir àll mu di ko fàdd ngir manduteem ngir taxaw woon julli ca jamonoom maa ngi liir bërki démb euh, ci jamonoom amoon na lu mel nii la daloon aw askanam waaye ba ko dalee moo futti ku takk ndigam def nii nga def kon yow Mbàkke dañ lay ñaanal yàlla guddal soo fan wa ma maayen foofu naa su fay mag su filaari googu yàlla di wax ci alxuraan ñu ngi naan yàlla dottul ñu ko ci yow ndax sagu murid yi nga sunu kiiraay nga sunu dëgërndaay la mbooloo mi nag nga ñaanal ni yàlla gën leen a dëgëral gën leen sàmm gën leen a taxaw ni ñu nasoo comme mel ni eh, eh, kurus ñi ngi ñaan ci barkeb seexul xaddiim nga ñaanal leen nas googu mu doon loo xam ne àdduna ak lay doon ñu ngi lay sant Mbàkke di la ñaanal di la gërëm di sant Cheikh Mamadou Basir mi bu baax a baax a baax di ko gërëm ndax gis nañ fan yi taxawaay bi mbënn mi pas-pas bi mu ci àndal ak engagement bi mu ci àndal ñun nag Mbàkke wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa duñu wax kenn wala taktumu shahaadat wa man yaktumhaa fa innahu aazimul qalbi boobu moom la ñuy bañ moo tax ñuy seede li ñuy seede ci moom di sant sëñ Ahmadou mii it nga xam ne sa rakk la di sa xarit di sa soppe di sa taalibe dëgg la taalibe xarit mooy ak taalibe nit boo ko bëggee sopp ko da ngeen dem ba nekk ay xarit te xarit Ibrahima Ibrahima ah tax sallahu Ibrahima xalilan taxasalaahu Ibrahima Khalil donc foofu rek laa ko dugge waaye ku ne xam na ne seen toogaay bi ku bëggul nit soppoo ko amoo ci moom taalibe li ko yàlla def neexu la doo tooge toogin wi ñii nag nii la yàlla def neex na leen seen yéene bu doon buñ ko mënoon tey fanu yonent yàlla nuhin wala yàlla di fàq jox la ko ndax sagub yoon wépp nga di santaale yi sa mbokk ma ca teewaawoon muy sëñ Babacar Sy Mansour li mu def gis nañ ko lu symbolique la lu rëy ci njabootu Serigne Touba la lu rëy ci yow la lu sedd sa xol la Serigne Bassirou mi waxtaan nga ceeg moom mu doon jëf joo xam ne jëf joo naw la jëf joo fonk la ndax euh, bàyyi na xel ni fee mu nekk ak fii yéen a bokk Serigne Touba yéen bokk Seydi Alaaji Malick kon Mbàkke loolu lépp nag buñ koy def ci yow lañ ko gisee ndax yow yaa yamalewul sa jëf ak sa taxawaay ak sa xettali mbindeef yi ci ci ci biir réew mi sa loxo ak sa xettilaa kon day génn ba génn bitim réew mi la Serigne Touba waxoon amara nii rabbi bi an usarriha bi an na nii man laasun wa mafsaun fa man araadal xayra fii kiltee daari ni fal yenus bii loolu nga dëggal ci mbooleem Euh, askan wi nekk ci biir àdduna bi kon Mbàkke yàlla na yàlla guddal saw fan yàlla na la yàlla sàmm yàlla na la yàlla aar yàlla na yàlla taxaw xamal ni jëf ji daal ñoom xeeb nañ ko lool jëf ju jëf néew ci seen xol la buñ ko mënoon kenn ci ñoom kenn rek moo koy def rëy maanaam xeebu na lool ci ñoom xeebu na lool ci kon Mbàkke nga ñaanal leen oh. dëgg la njëkk a gis. dëgg la ma gis lii nag. dëgg la macha allah macha allah waaye li may li may ma gën a ñor. ñoom ay seen mooy gi nga xam ne seen xol yi la teewlu jëmmi sëriñ bi. Mm. mel na a ngi jàkkaarloo moom. macha allah macha allah. loolu loolu loolu loolu rek. macha allah kàddu si ñu. jërëjëf waaw sëñ Ahmad Badawi rek sëñ Ahmad ma. ñëwoon na fi sax bëgg sa waaw ñëwoon na fi. ci affaire yu mbay soo wax ne kat sëñ Mbay sëñ Mbay itam woote ñu daal di jokkoo ci seen biir wax ne dañoo bëgg a daal di ñëw taxaw ci sa wet ndax lépp loo yëkkati jàpp nañ ne ñoo ca war a jiitu lii seen yéene mooy lépp loo bëgg def nga ne nangam laa bëgg ñu def ko nanga ko bëggee moo tax lii bi mu xewee li muy jàmp jàmp bañ déggee sa kàddu dégg sa jëf ñu ne dañu daal di ñëw feeñal seen yéene. bañ ma ko waxee dama leen waaw yéen seen naal bu mag bi macha allah talati ngeen dara ndax daari alxuraan jii nekk ci mu jàmm Cheikh Ahmadul Xadim dañoo ñëwoon ne la danoo fas ne caabi lañu lay jëbbal liggéey ba yéeme na lool ca xayma ju njëkk ja juróom-ñaari milliards yu topp lañu waxoon ne moo koy liggéey ñu ne la waaye sëriñ bi caabi lañ lay jëbbal daal di waxtaan ci seen biir nosu nga tuddee leen turu màgg woowu yi talia nga xam ne ñun sax danoo xoolaat mën jiit taliatul muridiyya bu ma leen koy firil nag lu daj sama xel rek ma indi ko ci waaye léeg dama naan leen yéen a war wane yoon wi ni liggéeyale sëriñ bi ci jamono jii ñu toll muy mbooloo mu àndandoo di jëf-jëf ju sell kenn ku nekk di def kàttanam waaye ñu nos ko ci nos woo xam ne lu waroon a jar nangam mën nañu wax ne genn wàll ga ndax liggéey bee ku fa dem lu ñu la wax ne dem na ci rek da nga naan wax ëpp na ko bokk na ci gan ñi fay ñëw di ko seet si loolu la ñuy njëkk a wax waaye bu ñu leen waxee ni ñu ko defaree nag dañ naan loolu moom kéemaan la ma ne leen bu ngeen duggee ci bunt bi ba yegg si fee lu ngeen gis mooy sëriñ bi li ko taalibe yi jox ka am dërëm joxe ka am ñaar dërëm ka am juróom-benn waaye daayira yi nga xam ne dañuy dajaloo di di sosi ci sëriñ bi di ko indi wala ñu jot ko seen bunt ci sëriñ ba mu indil ko sëriñ bi ak mboolem Cheikh Seck njaboot gi li ñu jox sëriñ bi ñii nag dañoo ñëwoon tobbil seen bopp aw sas wax sëriñ bi ne ko daare alxuraan yi caabi lañ day jébbal waaye yéeme na lool liggéey boobee nag ku koy def man jàppoon naa ne talatuñ leneen bi ñu ko waxee ma ñëw di tàggoo si loolu laa la wax ne damaa bañ ma ko waxee damaa defe noonu seen sas bi moom talatuñ dara ne ma man de bu ñu ko waxoon loolu laa leen ciy tegal mat sa sëkk waaye nag demee na nga leen xamal ne luñ joxe ci loxo borom bi subhanahu wa taala lañ ko teg ndax sëriñ bi ba mu fi nekkee ci boromam rek la nekkoon mustatal leneen mustatal leneen lu borom lu dul boromam kon nag nun bi nu ko noppee gis ci zahir boromam moo ko fi nekkal buñ ko wooyee boromam a koy wuyul bu ñu ko joxee boromam a koy nangul ba ma demee loolu laa leen wax ni ko sëriñ bay waxee léegi ca ca ca jataay ba ca lañ daal di euh, li daje toppatoo liggéey bu toll nii ma ne leen itam sëriñ bi ci boppam nag nee na xelam dal na retiix ci liggéey bi ndax yitte jii nga xam ne mooy yitteem taxawaay bii ngeen ci taxaw xolam sedd na ci xelam dal na ci man leen baatu retiix yi dama koy dégg ci sëriñ bi kon noonu ma ko dama ko dama ko sëriñ bi waxoon laa leen ko jottali waaye ñuy ay jàmbaar yoo xam ne liggéey bee de Mbakke yéeme na lool kon nag bu lii taxawee ñu taxawaat ànd ak Pastef wax wax ju rëy ji nga xam ne moom la sëriñ Bachir wax sëriñ Bay wax ko wane ne ñoom buñ sañoon boo soxlaa wala boo jëmee ci dara dañ naan noo ko bëggee ñu defee ko noonu ci ñoom waaye seen seen yéene amut amut fu mu yam kon nga ñaanal leen rek ba kattan gi sunu borom kattanal leen yokk kattan gi ba lépp luñ yéene ñu mën koo def waaye nu àndandoo ñun ñëpp it ñaanalaat la nga yàgg fi te wér keroog ci bisu gàmm gi dana wax ne mboolem murit yi fi teew nañ fas ci seen xol fasal Cheikh Mouhamadul Mountakha kenn ku nekk na fas yëg-yëgam loolu defe naa ne dañ ko fàttali waaye ci la fekkoon ñëpp ñaan sunu borom bàyyi la fi tàggale yéen yi ba li nga bëgg a liggéey lislaam lépp ci toolu sëriñ bi nga mën koo def waaye see mbooloo mi rek laay seede seenu cant ak seen pasif ak seen taxawaay ak nosu ndax liggéey bi seen biir lay wut ab liggéeykat ñooy dajale seenu see seen koppar sëñ Mbay mooy mooy mooy jawriñ ji waaye ab laay mooy trésorier bi ñu wut seenub liggéeykat ci biir boo xam ne ñoom ñoo xam ne ñu jëflanteek moom waaye batimaay daal yéeme na lu ñu wax ne dem na ca rek jàpp nañ ne lu ko ëpp dem na ca sell ga ak ak ak dëgër ga ak tegu ko tegu ko ca yoon ak méngoog jamono méngoog barab ba loolu lañ doon seede ci ñoom di ñaan suñu borom àggali yéen yëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu salaamaaleykum ci ndigalul sëriñ bi ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba jotaay bii mu tooge nga xam ne mënees naa wax ne moo doon Serigne Touba tey te Serigne Touba moo doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te taxawaay bu ma ko sëkk ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax yitteem jëpp dara génnu ci liggéey lislaam dara génnu ci liggéey Serigne Touba foo ko ñaanale yàlla na nga fi yàgg te wér lim lay waxe loolu doyuma ko dara lu may liggéeyal ko sëriñ bi te kuy dund ak moom wax naa ko fi bërki démb keroog di biir kuy dund ak moom xam lim toggoo ci jaamu yàlla xam lim toggoo ci jëflante nit ñi da xalaat sax nu mu xaje ci bis bi ndax loo ko bett bett yaa ngi fekk mu mu jël téer ba jàng bu nekkee ci mbooloo mi it lu yitte yi bari bari bari bari lii tey bari bari bari kenn ku ne daan la diglu tale sa aaj dana ko faj kon la Sëriñ Tuubaa dig lu ko nit ñi xam-xam rek ñun ñi ko gën a jege ñoo gën a xam ci woom dara waaye ku ko xam ku ne da xam ne na ma ko waxoon keroog rek kilifa la goo xam ne adduna sipp ci ñeek képp koo xam ne yaa ngi ci war a xam kon yàlla na fi yàgg tànn mu yëkkati kàddu yu cant nag ak ngërëm di ko jële ci jëm ci kuréel bii nga xam ne yàlla def na keroog ba mu koy njëkkee tàmbali boobu màggal Tuubaa day door a jàll muy bëgg jëm ci liggéeyu université bi ca daaru tansil boobu suñu ba Badaw yi mi ngi toog suñu Abdoulaye Diop mi ngi toog suñu Bay Saar ngi toog suñu Cheikh Mbacke Seye mooy jataay ba njëkk def laaj ci ndigal sëriñ bi jox leen ndigal ba noppi jël ëpp jox leen tur wi nag kon mooy taliatul muridiya ñuy bo ñuy ay jàmbaar di borom Pastef bayit ba sama xel di moom rek moom la suñ basirum suñ xaari ba boox wa rufqatun wa hiya ixwanun lahum himamun mahal wafaai bi sidqin fi l uxuwaati wala waral suñu buré bi nga xam ne li ma fekk ci ay somb di bari na waaye yëpp laay àggale te yàlla def na yëpp sotti na ci loxoom muy liggéey Masaalikul Jinaan mu fekkoon Cheikh Sidi Moxtaar tàmbali woon ko ak Massa ak Jumaay Tuubaa mu desoon lu baree bari loo xam nit ñi xamuñ ko waaye lépp mu àggale ko daan waaye nag sama yitte jëpp nag maa ngi ko jëm ci daare Cheikhul Xadim ji nga xam ne ndigalu Serigne Touba moo ci desoon ngeen yéen itam ngeen jël fa engagement te al xurru xurru maa lam kenn déggu seen communiqué kenn déggu seen woote ku ko xamul dëgg-dëgg sax du yëg seenub liggéey ngeen liggéey fa bâtiment yi yéen ngeen liggéey ci université kon loolu li sëriñ bi wax suñu am wax na ko léegi bu ngeen tàggoon sëriñ bi kon sëriñ bi danaa jéggal naa leen ndax leen ndax sëriñ bi mënta tege ñi nga xam ne seen maam yi sax dañoo yaakaar suñu Tuubaa bu ci teg nit ab liggéey sax day diisoo noonu la ko yàlla bindee sëriñ bi mënta teg kenn dara kon nag bu yàlla defee lii am ngeen waxtaan ci seen biir tàmbalee ci sëñ Bay Saar sëñ Ablaye ak sëñ Pape Fall ak sëñ euh, Sëriñ Seck ak sëñ Kabou Gueye ak sëñ Mbacke Samb ak seex seex Mbacke Sey ñoom ñëpp daal ak ñi teewut ndax boo xasee tudd kenn tudd nga kenn suñ base yow tam ñu ngi lay gërëm ndax yaa ngi leen di gën a bool di leen gën a dajale te loolu ci liggéey Sëñ Tuubaa bi la ndax siñ Tuubaa moo ñaanoo suñu borom ne ko mm-hmm. yaa rabbi ijaalil muridina maa fi xisnika alxasini wa cham lañ maa kon loolu lu am solo la foo gisee lu baax rek yéene ko Sëriñ Tuubaa suñ képp ku koy jëfal ci yow lay delluwaat kon nag sëriñ bi nee na ak cantam ci yéen rëy na lool ndax lii kat bu ngeen ko defutoon doyloon na seen jëf jee ngeen jëfoon démb mm-hmm. waaye xam na diggante bi gàtt na ndax ñett fan ngeen fi ngeen ko dajale kon ñu bari sax yéeguñ ko waaye liire rëy ndax kenn mën a guleen fi boobu ko sëñ bi wootee ba tey nag fu ne taalibe yi nga fay jóge ñëw di joxe kon sëñ bi sant na bokk taalibe yëpp waaye yéen mi ngi leen beral seen cant di leen ñaan li tam addiye ji ngeen fi indi yàlla na ko suñ borom tàbbal ci lim deele ci ku def ci yoonu yàlla te xam naa ne tàbbi na ci ndax dara génnu ci dara ci taalibe yi bañ na ko ba da ko ber sax duuru ko ci kaw Sëñ Tuubaa bi da ko ber ngir lépp jëmaat ci mbindeef yi te boo ko defutoon it yéen ba ngeen ko xesee joxe bu leen sa bu leen neexoon teg ceeg almet lakk ko ni ko Darou Salaam defe waaye moom ci sellalam nangu dara jaxasoo ci sax lépp da ko delluwaat ci mbindeef yi kon yëg na ne lii eh, xam na fi mu taxawe te guddeeg bëccëg ma ngi cee def te li ciy feeñ itam li ci nit ñi xamul moo ko yëpp lii mu dimbali ci nit li ci nit ñi xamul moo ëpp li def kon dañ ko ñaan yàlla yàggal ko fi te ànd itam. yàlla leen suñ boom tëbb kattan ni mu ko ñaani moom suñ tab tëbb leen ak wér may leen may loon may leen doole jëf nag ndax xam leen ne seen yéene appur fenn ndax suñu ab laajo mii kat yéenam àgg na ci beneen ma suñ bi sax dafa war a woote taalibi suñ tuwaay yëpp ngir dëkk bi ñu def ñu def ko assainissement ndax xam na ne eh, dëkk bi ku fi dugg xam na ne mel boo dugg ko fi sax waaye jot na ma téléphone ne ma suñ bi na sase na sa na sase assainissement bi ndox mi nit ñi defar ndax bu ñu ko sasee nit ñi mën nit ñi danañ ko def loolu lépp yéen i jóg. seen seen seen sant bu baax posté bi suñu borom defal Serigne Touba ci yéen lépp dana mel nan bëgg incha allah nan ci nekk rek nan ci nekk rek dana mel nan bëgg. tabarkalla ci desit rek dana mel nan bëgg nag xam ngeen ne kenn jiituwu leen ci. jërëjëf waaw tabarkalla ba ca des rek nag mooy. liggéey Sëñ Tuubaa moom kenn du ci wàcce waaye sëñ bi am na somb yu rëy ci dëkk bi waxagu ko nag xam naa fii ak cent bi ba nawet bi jeex takk bañ bañ jublu ci lii na ko yëgal bokk taal bi yëpp ci làmm ñoom ba ñëpp déggal ko sama bopp ñëpp ñëpp defaat ko yitte comme ni ñu defee université bi rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah teewlu sëriñ bi seen xol yi yéen a ngi jàkkaarloo sëriñ bi teewlu googu man man moom laa gis teewlu googu nag moo moo moo moo rëy man lool eh, waaye nag damay damay damay teewlu man itam eh, yàlla mi ko def ci yéen mu dolli leen ko te bu dañ mukk di leen ko dolli ba keroog bis ba fa fa Euh, euh, fa ñuy wanee ndam ya euh, sëñ loolu foofu rek laa leen xool loolu foofu rek ndam ndam ndam loolu rek laa leen yéene ndax lu mu bëggal sama rek ma wax ne yéen laa ci jiital yéen yéen a <laughs> ma gën loolu moo loolu nekk man ndax mu ndax bëgguma dara lu sëriñ bi wutuma dara lu sëriñ bi te lu ma ci am yéene naa yéene ko lu ma ci bëgg rek bëggal naa leen ko kon nag jërë jëf eh, jërë ngeen jëf di leen sant gërëm bu baax a baax seen seen bi ak seen ji du loo xam ne mas na koo sant ci làmmiñ dañ koy teewlu ci xol rek xam na sëriñ bi gis na ko te na ko ci gàttal waaw gis na ko gërëm na ko kon loolu doy na jërë jëf bismillah ay bi gaalam ngir ci la lam la la ca nekk di ko ci indil war ngaa xam ne da lay sakkan rek waaye fii de boo nga génn fi war a mën a am dara ci ni ñu natt nit day amate ca kaw suuf mënoo ko cee génn ko def lépp yaay ñoom yàlla yàgg na